Assalamualaikum mbokk yi nuyu nañ leen bu baaxa baaxa ba di la wone welcome back ci suma daily news mu nekk euh, Wednesday the 13th of November 2024 euh, tey nak wala ma dugg ci xibaar yi nak euh, tey mom lu ma wax rek ma ngi ñaan képp ko xam dal daal da nga dee suñu news yi ñu ngi la ñaan bu baaxa baaxa ba la suma dom bi suma taw bu jigen bi di Aisha tey la am 7 years so ñu ngi sàkku ñaan ci ñëpp pour ngeen ñaanal ko bu baaxa baaxa baaxa loolu moom maa ngi leen ko ñaan euh, tey bu baax force xibaar boo xam ne am nañ ko fi dañu ne président Adama Barrow moom euh, dal dina dellu Gambia de depuis bu mu demee Maroc euh, dem ñu ne lu uti woon Maroc moo nekk oon soxlaam la demoon Maroc mu nekkoon foofu noonu waaye ñu ne jamono bii nii nag président Adama Barrow dal dina dellu biir Gambia ñu ne euh, xibaar boo xam ne daal euh, ñu ne ko daal di génne di office of the president ñoom daal dinañ wax de ñu ne euh, koo xam ne daal moom moo nekk suñ njiite réew bi di président Adama Barrow depuis bu mu demee dem holiday bi fële de biir Maroc. Ah, mu nekkoon foofu noonu ah, ñeneen nii di lam-lame lu nekk ni dafa feebar ah, daf doon faju ñe ñu ne dafa demoon pour soxla boppam de ñu ne nag jamono bu ñu toll nii nag président bi démba si guddi mi nga xam ne one o'clock si guddi daal one thirty si guddi si la daal di egsi Banjul International Airport si la fa eggan noonu comme ni ko gay waxee ñu ne président bi nag jamono bii nii nag mun nañoo wax ne rek mom rightnow mu ngi e, banjul comme ànd ko gaay waxee si seen facebook page boo xam ne dara gaay post nañ ko fo beneen xibaar boo xam ne tamit am nañ ko de ñu ne loo xam ne lu dem ba fifty million dollars yi bi nga xam ne daal kii daal loolu la dal di e, wax ne ku koo xam ne ñu ngi ko oyee keba ansu bi nga xam ne mu ngi nekk journaliste ñu ne lan loolu la ko moom loolu la lacce ne loolu loolu la ko war a fay kan moo wax lii nag ak lu tax dinañ si dugal léegi léegi ñu ne 50 euh, million dalasi euh, maanaam euh, kiis boo xam ne daal ah, comme ah, ku ñoo ooyee Rohey John Manjang ah, Rohey John Manjang ne moom moo nekk minister of environment moom loolu la dal di wax ne eh, ku ñoo ooyee Keba Ansumaneh loolu la ko war a jo yi xam ne daal moom moom moom Alkamba Time newspaper comme nu ko gars yi waxee ñu ne daal kiis boo xam ne daal mu ngi nekk High Court Banjul ku ko nekk di jiite di justice Sonia Kimbi yi ne daal moom moo nekk foofu noonu pour ne daal Sénégal uh, ministre bi nii loolu la uh, nekk di laajte si loxo uh, Keba Ansoumani mi nga xam ne moo nekk Alkamba time. ñu ne ñaari yi ñi ah, seen looya yi ki nga xam ne daal ah, kooku leen tuumal di eh, kebaa Mané ak ah, Rohey eh, John Manjang ñoom seen looya yëpp ñu ngi nekkoon foofu noonu si court house bi démba de waaye nag ñu ne ministre bi si boppam moom nekkutoon foofu noonu comme ni ko gaay ñu ne koo xam ne daal kuñ kuñ kuñ tuumal di eh, Keba mi nga xam ne mu ngi nekk journaliste journaliste Keba Ansumané de moom a dafa dal di binda loo xam ne daal ñu ne loolu a neexut ko xam ne ñu ngi ko ooyee Rohey Emini mi nga xam ne mu ngi nekk ah, ministre ah, bi nga xam ne moom moo nekk environment minister ah, moom Rohey nag si la dal di eh, yóbbu Keba Ansu Mane Euh, comme euh, seen njiit bi nu mu ko defee rek euh, loolu la ñoo waa ñu ne njiit lu mu def rek foog ñu nekk si gannaaw ñu toppa si jamono bu ñu toll nii nag ku def dara rek ku wax loo xam ne xibaar la lu dem si ministre yi ak président bi rek dañ la dee yóbbu koor ñu caaj la xaalis bu bari bari bari loolu lañu am Gambia jamono bu ñu toll nii léegi kenn amul right nga binda dara si ministre au journaliste loolu moom daw kontaan torop torop waaye lu ñu mën a foofu si xibaar bi yëpp lu ko isi rek moo nekk euh, kii koo xam ne ñu ngi ko ooyee euh, Alkamba seen newspaper bi dafa am loo xam ne loolu lañ dal di binda euh, si benn article bi nga xam ne daal ñu ne koo xam ne moom moo nekk minister of environment moom ah, dal dina wax ne alkamba ah, nañ apologize ah, si loo xam ne daal loolu lañ wax parce que dañ ko dañ nekk di yaaxa deram bi si ko loolu nag mu yóbbu gaay si yoon moom lu mu wax mu ne na ko gaay fay lu dem bi eh, juróom fukki million yi dalasi moom loolu la nekk di laajte alkamba pour loolu mooy mën a seedal xolam bi ministre eh,